salaam mbokk sa F7 TV maa ngi bëgg ñu di ziar ñëpp di ñëw gën a fës si journée dimanche mars dañuy commencé club bi di Paris saint foofu sa France seen joueur bi di Kylian Mbappé su saison bi jeexee day dem moo tax nag fu mu toll ñuy war ko ko remplacer kon nag ki di Lamine Yamal bu FC Barcelone la Paris Saint-Germain woon fay lu toll ak 200 millions d'euros Barcelone dañoo daak offre bu Paris bi kon Barcelone li ñu bëgg nañ leen jaay ndax Barca dafa bokk si ëllëgu club bi ba léegi ak Paris Saint-Germain benn joueur bi nga xam ne doon nañ ko jéem a signé muy nag Vinicius Junior bu Real kon na ñi di waa Paris fu mu toll ñu ngi bàyyi xel te nag bëgg nañ ko signé ëllëg si biir waaye nag Real ñoom tamit seen côté bëgg ñoo bàyyi seen jour bi ba léegi ak Paris saint bëgg nañu recruter ki di Théo Hernandez nekk latéral si club bi di Milan waaye nag Bayern Munich ñoo jiitu si dossier boobu noonu te nag commencé woon nañ sore si waxtaan yi défenseuru Lille bi di Leniero moom si diggante Paris saint ak Real bi nga xam ne ñoo ko doon moom Real Madrid la tànn ngir nag football fa kon Lille ñoom seen côté suñu sañoon si club seen concurrent direct FC Barcelone ñu ngi bàyyi situation Eric Maxim Choupo-Moting bu Bayern Munich bi nga xam ne nag contrat am ak mu ngi war a jeex si weeru juin bii nii loolu tax nag mu toll nii waa dina prolonger contrat am ak Atlético lu yàggul la dara ay jege ñaale Nico Williams ñu ngi xamal club yi nga xam ne ñoo ko bëgg a signé ne saison bi jeexee di jógee si club bi di Atlético Bilbao bi nga xam ne nag fa nekk kon nag club yi nga xam ne bëgg West ak yeneen club européen xam ne nag ñoo ko bëgg a signé xamal nañ leen ne nag su bu jeexee da jógee foofu sa Atlético Bilbao. bi di Lewis Hall kon Chelsea ñoo ko abale si club bi di Newcastle waa Newcastle dañ ko bëgg jënd ngeen nag moom ko carrément kon na pare nañ pour fay lu toll ak 30 millions livres bi nga xam ne nag moom la ñu fay ngeen nag moom kii di Lewis Hall. Newcastle ak Bayern Munich ñu ngi bàyyi xel kii di Zinchenko nekk latéral ci club bi di euh, Arsenal kon Arsenal ñu ngi laaj 35 millions d'euros pour bàyyi seen joueur bi dem Borussia Dortmund ñu ngi bàyyi xel situation Mason Greenwood nekk ci club bi di Getafe bi nga ne nag Manchester United ñoo fa abale kon na Manchester United ñoom ma dañoo pare pour jaay seen joueur bi te nag Borussia Dortmund ñoom ma pare nañ pour jënd mu ngi am clause bu toll si 60 millions d'euros ñaari club italien yi di Milan ak Juventus ñu ngi koy bàyyi xel Aliou Cissé mu jéem bi nga ne mu ngi juin 2024 mujjee yokk ba kon na ma yóbbu équipe nationale bi si Coupe d'Afrique bu war a foofu sa Maroc ak si Coupe du monde bi fekkee nag gaynde Sénégal yi qualifié nañ foofu la ñu amale xibaar yi di leen jox jox daje beneen yoon xibaar di leen ñaan ngeen